mbokk site internet Buzz Actu 221 dal leen ak jàmm ci seen tënkum xibaar ci gën a fës dañ koy door rek nag dakkal bi nga xamante ne nag tere nañ leen ko ngir ñu amal li nga xamante ne moom mooy seen mitin na nag ngir bu 9 heures jotee rek dañ li nga xamante moom mooy jaayum bracelet mi ndax Sénégal mën a nekk nekk ci jàmm mi ngay woon nag képp koo xamante ne rek sympathisant nga ak ba membre Pastef rek nga ñëw tombe nga ñëw teewee boobulee élément bu fukki waxtu jotee nag dinañ amal nag takk ay morso yu xonk cor nag wane ne Macky Sall nag dictature la waaw ki xam ne mbir mu nu mel nag di El Hadj Malick Ndiaye bu vingt heures jotee nag jàpp fanweeri minute nag dinañ amal concert des casseroles ngir kii di Macky Sall rek daal di wàcc ci ngur gi nu mu gën a fexe nag ba dellusiwaat jàmm ci biir réew mi waaye nag na fexe ba buy dem rek dem ci anam bu rafet ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bi